Euh, asalaamualeykum xam naa suñu daje bii yal na ci yiw topp suñu daje bii yal na ci yiw topp mas naa dégg ci seen góor gu baax yal na yàlla dolli ko leer moo ñamu fa nekkal muy sëriñ mu niiru mu ni ñi yi leen tàqale dara du ci dëkk neen su dëgg ñëwee rek ñëpp àndaat ca nee na dee rek ay dëgg ñi soreek ñi jegeek ñi nekkoon feneen nag ñi jóge buudeeg ñépp daje nañu tey ndax dëgg xew dee rek ay dëgg leneen lu mu doon nag mën nga koo tàdde bu la neexee euh, fa tabarakallahu ñii toog fu ñu toog amatuma fa kàddu fu ñu nekkul sax awma fa kàddu seen kàddu lay waxe ndax sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si moo waxoon ci xaqu sëñ Abdoul Aziz Al Amin dal yàlla dolli leen leer ca jëmb mu wax ni kilifa du rakku kenn kilifa du njabootu kenn kilifa du njabootu kenn du rakku kenn kilifa kilifa la rek fu mu ne ay kilifaa fi teew lii xew tey nag Euh, sëriñ mu Mounirou Sarr waxoon na ne ku dem feeñ waaye Xaaji Malick Cissé lu mu doon dunde ci kër Seydil Xaaji Malick feeñ na tey ndax lii mu am caaxaan mayewu lii mu am pexe mayewu ko lan laa ciy jiita déplacement ñii ku xam ci li ñu nekk Serigne Moustapha yi lii mu jóge démb wala weeru yëpp di ko waajal tey ñu ñëw yendu si fi ànd seen mbokk bopp yi ñoom sëñ Babacar sëñ Habib yëpp fa ci soxla yi ñëw hmm. la leen ko jaral jar na ko hmm. ca Cissé leen ko jaral ñu ngi ñaan yàlla Hadji Malick yàlla bu ko ca jipp ci bàmmeelam am na ku ko ñaan léegi hmm. ah wax dëgg yàllam jar na yaakaaral ndax xaaj Malick Cissé ci kepparu sëyi Cheikh Ahmed Tidiane dañu toog ci armée yi léegi ma ne am na lu sëriñ si keroog bi ñu ko dencee dama yéeg jóge ci ëttu tànt ba ñu kilifa yi waxtaan waxtaan mm-hmm. ma jóge fa ñëw ci kër gi raj taal rajo bi fekk sëyi Cheikh mi ñu denc ba ma agsi mm-hmm. yem ci kàddu gi may bëgg a wax mm-hmm. mu wax ni ci rajo bi de ca maa ngi soogaat si toogaguma dama taal rajo bi rek mu naan am na ñoo xam ne bu ñu génnee àddina bu ñu leen di sang ña nga toog di seetaan bu ñu leen di sang ña ngay seetaan bu ñu leen di jullee ña ngay seetaan bu ñu leen di suul ña ngay seetaan ma ma taxaw ci néeg bi man képp soxna ki ne ñëpp ñooy kër gi ma ni kii daf maa bëgg a jommal denc ñëw ubbi rajo mu mu wax ak yow waaye ci armée li léegi nag xaaji Malick Cissé yal na ko yàlla boole ci ñooñu waaye bu ci bokkee dana kontaan tey yal na ko yàlla boole ci ñi gis dara ci ginnaawam ak kanamam def naa kon dana bëgg ndax nii kilifa yi taxawe seen ànd bu rafet bii ñépp di sëti Seydi El Hadji ñëpp di sëti sëñ Babacar ñu ànd ak suñu wayjur bii sëñ Babacar kan di nijaay ci ñoom di wayjur ci ñun ak ñaan ji mu ñaan ca armeel ya ñaanu xol gi mu ñaan ak taataanu xol bi ngeen ko taataan yal na ko yàlla taataane noonu nangoo ko noonu añale ko ko fa mu tëdd ah dañu sañul woon a nuyoo rek waaye ndax kilifa sànni kaddu moo wax ni naa sànni kaddu ma nuyoo rek waaye amul lu ma fi wax li ñuy ñaan rek mooy fa mu tëdd tey la koy wéttal yan leeru yàlla la muy wéttali ko it leeru yàlla danaa ci dollu lenn rek loo xam ne fu ma dajeeg yéen ci lu mel ni danaa ko wax mooy lixlaas yi nañ koy bari ci ñi dem ci dem ci bees ak ña fa nekk nañuy bari lixlaas ah, waaje dafay borom kasfu romb ca armeel ya fekk fa benn waay bu ñuy mbugal mbugal ma metti lool mu dem doxi soxlaam dëkk ba lu toll ci fukki minute ak juróom ñaar fukki minute wàññeeku jaaraat ci armeel yi fekk waay ji ci xéewal yu amul fa mu yem sañ-sañam àgg na ci mënu ko lu xew ba fi jaaree léegi tiisoon na lool léegi changement am lu fi xew Serigne Cheikh Tidiane Sy yal na yàlla dolli ko nee woon suñu digganteeg ñoom suñu diggante ña ca bari sax mm-hmm. nee na lu gën a woyof di deval moo ci nekk mm-hmm, waaye feeñ na ci jataay boobu mm-hmm. bi fi waa ji jaaree laaj néew bi ne ko waaw lu xew ba fi jaaree léegi tiisoon na lool ma wàññee ko xéewal yi amul fu mu yem néew bi ni ko bi nga fi jaaree di dem dafa am ku topp sa ginnaaw jàng benn soratu lexlaas boole ñu ko ba ñu koy séddoo man lii fu axat ga laa tesel muy sama wàll dara jeexatu kon li ñu ñaanal xaaji Malick Cissé ci yéen lexlaas ni ko kilifa yi ñaanale yal na ko yàlla nangu yaatal ko ba ku mu fekki xacca ku ko fekki ëllëg xacca yal na ko yàlla def ci seen barke maam ci seen barke bay yàlla sàmmal ñu leen ci zahir sàmmal ñu leen ci baatin ngeen yàgg a tette yàgg a gunge wax naa léegi Serigne Moustapha ci oto bi ah mu am kàddu yu mu sànni ko moom day am na lu wolof wax Serigne Mouniru tontu wolof wolof dafa wax ni ku des dese sëñ Mouniru ni ndeem nangu dem nangu kon nangu rek moo dese hmm. mu mel ni ñii fi teew teewal fi seen maam hmm. ah nangu nañ hmm. nangu mooy taxawul sa alalu maam te lii yow alalu Seydil Hadj alalu sëñ Babacar ñëpp bokk ñëw fa tabarakallahu ñoom Hadj Malick Maodo mu sëy Cheikh Dakar ñoom sëñ Abdourahmane ñu ngi leen di xaaj ñu ngi leen di tudd ñoo ko moomal seen bopp ñoom imam Samba ngi ne sëñ Moustapha yabal leen fa tabarak kër yëpp daje kon nag ñu ngi ñaan yàlla Serigne Mansour ma fa nekk ñu ngi jël njaalu ki njaboot bi yëpp teg ko ci loxo Serigne Moustapha mii toog mu teg ko ci loxo Serigne Habib mu joxal ñu ko Serigne Mansour di yóbbante njaag ci Serigne Moustapha mi ñëwul ci ñëw ndax yabal na ay nit ca muy alalam ñu ngi jaale ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp fa tabarakal ngeen baal ñu wax kàddu yi gënaluñu woon waaye kilifaa ko santaane rek ngeen baal ñu wax jërëjëf